acca jërë jëf ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delluwaat ku nekk sa wàccuwaay amaat di di kontaan te wax tey nag ñu gisee dalal beneen kilifa di kàngam kooku mooy Serigne Moustapha Dieye moom nag xam naa ci biir site bi moom kenn du ko fi présenté ko daan ko xam ne biir réew mi ak bitim réew rawatina li nga xam saa su nekk mu ngi koy baaxee li di jaam yàlla yi ci mbirum paj ak ñaan waaye nag lu ci mu ngi waxtaanee li nga xam ne saa su nekk da di siwaat ci biir réew mi mu di mbirum xew-xew jamono dinañ waxtaan ci waaye dinañ wax ci réew mi mbirum politique yaatal ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr lañ ci yaatal bu baax a baax Serigne Safa Dieye mu bàyyi nga ñëw mbokk askan. Euh, auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billah laa xawla wala quwwata illa billah alhamdulillah sant yàlla julli ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur yi ak di leen ñaanal sunu tëdd yàlla yërëm leen xare leen aljanna ak bépp néew bu ne ci biir suuf di ko ñaanal it ñi tëdd ci hôpital yi te tawat yal na leen yàlla defal wér yal na leen yàlla defal tawfeex ak ñi tëdd ci biir kër yi ak ñi nga xam ni sax ñu ngi koy doxantoo di ñaanal it ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen sunu boroom teggil seen nattu yi ñanu juum ci seen mbir yal na leen yàlla gindi ni juum ci seeni mbir yàlla na yàlla gindi leen ba teg ñëpp ala siraatul mustaqim ci barke xam Muhammad di baalu xàq nag àdduna bépp ndax depuis julli gi ba léegi jàkkaarloo woonu ci baaloonte àq ndax wax dafa sew te bu nu sañoon kenn ku ne nu fekk la sa buntu kër jàbbala loxo saafoonteeg yow baalu la àq niy baalu ñëpp àq sëñ Cheikh di wax ni waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Cheikh. jërëjëf. jërëjëf euh, Serigne Moustapha ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane. ginnaaw Serigne yooyu am na njëriñ bu baax a baax ci ñaan yëpp ñu ngi ñaan dina ameen ci ñaan yi. am foo xam fu am solo bëggoon naa fi ñu njëkk fa tey. Mhm. Euh, dañ koy gis lu bëri muy dellusiwaat ci biir réew mi lu mel dañ koo xaw a cofantal. Mhm. wax ci yeneen yoo xam ne lu amul. doo mu ne mbirum accident la donte yàlla nag loo gis da koy am fu mu koy jaaral hmm. moo ci mujj yàggu dara mu ne camion malien boobu nga xam ne yéeg na taxi noonu hmm. ba rey ci nit ñu xaw a ndax loolu moo ko mën a wax hmm. ñu ngi koy jaale ñun ñëpp seen mbokk accident ca accident wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dañuy déglu ni yàlla may nan lay la amoon amatul ku ko wax neel bakkan amatul dunda amatul dee amatul li yàlla may woon démb tey sax la gën a leer ci mag ñi fi ne woon sëriñ Cheikh bàyyeeku gi waral na déggi du neen accident yi du neen benn semaine lu ëpp ñaar fukki nit faatu ci benn semaine laa wax yoonu Touba wi yàggul dara juróom-ñaari nit dee sur fukki nit ak benn dee ci benn kaar ci mbooru njum xaw ma booru fan waaye yàggul dara oto nit xool xool oto jàkkaarloo ak moom mën a yàgg yéeg ci kawam ku ni la loolu neen la du neen suñu kilifa yi tegloo it di dem rek <laughs> ni nu garaawul déedéet nu bàyyi xel lu bare nag wax ji nag du neex <laughs> yàlla yàlla ji li ñuy làq léeg ci gannaaw yàlla te du yàlla bare na bu dee lii am na <laughs> nanu xool lu nu def yàlla waxuma dégg yàlla danoo tooñ yàlla de nanu xool lu xew bu nu fa mënul jële foofu nanu xool lan moo waral liy xew di xew di jaale nag sunu xalifa général yu tedd yi dem sunu maam Abdoulaye Thiaw sunu xalifa bi ci Anaba di jaal sunu xalifa ba ca Louga sëriñ Abbas Sall di jaal sax ñu nu yëgut mhm. suñ cheikh mag ñu tedd ñaa ngi dem rek mhm. ku xam dara da nga tiit man day tëdd man day ubbi naa ay semaine yoo xam ni maa ngi jàngat lu bare de maa ngi bàyyi xel lu bare waaye it ma tiit lool ci bis bi ma gisee nit xotti foto Serigne Babacar Sy laa gën a ñàkk yaakaar sax ci lu bari ci réew mi nag su dee dëgg laa lay wax ndax réew mii ma nekk su ma fi juddoo woon man Moustapha Dieye fekkuma fi Serigne Babacar si ni ko fi waxtaane baa mosu fi jaar ma boob samay bagage dem ba Congo dëkki fa li ma lay wax nag dama ko xam xam naa it fu ma ko teg te bu ma la ko waxee war nga ko nangu soo xoolee doomi Serigne Babacar Sy yi mu jur nga xam ko néew ci sëriñ Mansour ba Serigne Cheikh waxuma ñeneen ñi sax yeggaguma fa mhm. kon am na lu yàlla di rëqi sunu ndigg te yàggul dara ni nu feebaru delta bi ñëwati na ñépp di tëddandoo ñii di dee di dem rek ñun ñaa ngi dee de déegu métti kay nag nga xamoo comprendre li lu mu doon ci àdduna. nu war ci jàngat. ñu ne duñu ko def dañuy toog ci internet yi di saagante di waxante lu bon di kiiwee accident yi nag laa gën a Sëriñ yàggunu fii dara ma nenu ma mhm. ay journaliste dee nanu mhm. ñett lanu mhm. ñu leen rayoon oto lanu wax camion malien ñii deewaat camion malien pourtant sama jeexantalu wax dama ni ne nit ñi di xam fi ñuy teg seen tànk te moytu balaa ni leen ni boole ci sarax yi loolooy wax ji mhm. <laughs> boo daan jënd saaku ceeb ma mën a def un mois saaku ceeb bi defatul une am na lu xew wax bi lépp lool la hmm. su saraxee dugub nag néewee hmm. bëgg yéeg ci kaw bare bëgg nguur bare bëgg pal bare bëgg leneen bare darit dana tuuru <laughs> moo waral nag mani la mhm. nanu seetaan te dërit gi tuuruwul de barka démb gaal yi la woon yow boo analyser diggante daaw ak ren li fi dee waxaguma nag feebar bi de li fi dee waa danga naan ñun lan mu lan moonu dugg ñun ni naan déedéet garaawul yàlla la yàlla la yàlla la lépp yàlla la waaye yàlla tibbul jox la pour nga sex mhm. am nay nag saafara ku bëgg sa bopp barke Seyduna Muhammad te bañ yenn yi bett la hmm. jugal ci sa bopp loolu laay wax waaye accident yi genn wàll gépp du neen noo leen ci mën a li ma leen si mën a baaxe Serigne Cheikh mooy hmm. nu wàññi tooñ gi te dem defaru yaram yi nit ñi ñi ngi leen di sacrifice rek nu nefe di caaxaan am na ñoo xam ni ci image yi lañ leen di jël ci écran yi xoolal léegi ñi dàq si na ba dàq dee waaw. ñu dàq si nag. ñoo fi dàq dee. dañ naan la la woon. walla nangam la woon wala tiktokeur la woon. waaw loolu lan moo ah, nu daan seet ci kër yi di leen loqati di leen xaar ci buntu kër yi léegi ñoom dañoo génn di jaay seen bopp cest à jaay sa bopp mooy maa ngi nii nëbbatoo sa dara pour nu yóbbu la day yomb. bu la sacrifice man la jàpp ku la bëgg a yóbbu man la jàpp. ni naan déedéet garaawul. ah déedéet demal si internet bi rek xool ñin lu ëpp dañ naan la kii moo doon def nangam. te li ma lay wax ni bàyyi ko xel. man nag ni may dunde man duma bàyyi sax yoobuy naaw. xam naa dama bëgg a xam yow bii naaw fan la jëm. Ah, ok loolu leer na. Mhm. jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Moustapha ci ponk boobu nga xam ne moom lañuy ñuy ubbee. Mhm. Euh, am na solo lim ci faram waaye dama ñëw nag xam naa la mhm. neex. Euh, bu fekkee ne um fàtte nañ ko man it man moom fàtte wu ma. te day mbir mu doy waar. bu di seen bokk sëriñ si. waaw comme que damay jëflanteeg yéen ko askan wi laa ko nekk. mu di sëriñ Hamidou Sidibé. ray bi ñu si rayoon kii di xale boobu ñu naan Lobé Ndiaye. waaw di moo waral sax nag te su ma ci waxul rekk amul lu ma gën a naqadi ci at mi nu génn ba ci bii lu raw lool ci àdduna kooku nag gëwma ci moom ni nit gën na ko bon waaye li ci doy waar mooy en tant sëriñ nga ni sëriñ nga waaw di jëf yenn jëf yu toll noonu xeetu jëf yooyu nag nee naa la xam naa ni du lu muy soogay def c'est la première fois ndax nit ku ko mën a rey ba pare tranquille dérangé la nga mel ni yëgoo lu xew bay génn di doxi sa soxla yow doo nit waaye loolu moom du ko jikk te dana xam ni sax du ko jikk ak fu mu ko ak fu mu ko def en tant que jigéen man su ma gisee xale bu jigéen bi doon mécanicien daa doon mu koo xam ni day jaay ay pièces détachées imaginel jigéen volontaire lu góor waroon liggéey mu jël ko volontaire ko di ko liggéey ah, ah ma xalaat rek bi yi càmbinan bi naan dafa euh, rakka doomam yi dañuy dem mu leen di jox chaque jour cent francs nu xëy gisatuñu seen bàjjan boobu mm-hmm. loolu mooy lan ci àdduna metti la affaire la. waaye du leen jig de. billaahi du ko jig moom. mënu ko sax jig nag. rek la ñu si wax. léegi li ma si wax mooy. nu bàyyi xel lu baree bare. ndax yooyu Serigne Cheikh. ni ngi continuer di am ñaata nit a réer. ñaata nit la gisatul. ñaata nit la ñuy dox ba ci yàgg rek gis ko pour mu waxee ko fenn. waaw pour lan. ku bëgg lu leer di def lu leer ngay sëriñ te li ngay def leer sa kër laaj na mu am caméra surveillance bu dee jub nga soo paree nga supprimer ndax yow docteur nga sañoo yóbbu sékkëri jaamur waaye jamono dafa toll foo xam ni bu dee jubal a tara yitteel loolu c'est normal lu jaadu la waaw mm-hmm. loolay dëgg sax looloo dëgg waaye ki ñëw ba ci yow li la damay ñaanlu mhm. nga jël ab kuur nekk ko fëgg muy jigéen man gëw ma ni yow mas nga am doom ci àdduna gëw ma ni saxum doomu aadama waaye yàll na yàlla àtte leen ñoom ñaar ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñëwaat ci beneen ponk lu di ay di njàmbat ndax mhm. euh, dama ci taalatu di laaj sax waaye mënta ñàkk ndax mhm. il faut ngeen ci wax ngeen ci barkeelu ndax ba léegi seen mbokku sëriñ laa ko mën a wooye ndax mhm. ñu bëri ci yéen bedd nañ ko waaw gëmatuñ ko lan nga ñu mën a wax ci Kounkandé Kounkandé waxoon naa la fii keroog barees ma tiib lool nag li ma tiit lool lenn rek la man nit ci boppam yow nga xool ko xam ni kii li muy wax ni wër na ni la amut am télévision ni mu toll ab rajo ni mu toll temps ba na mu toll ak foofu ak ku ko mën invité mhm. nga mënoon fa def yeneen ak fi réew mi toll ak fi jamono toll ak fi àdduna toll xam ni nit a ngi bëgg fu mu wax soxlaam sax amu ko di ko misère ba xëy dee ni ciy teg loo xam ni yow leer na ni la kii nii man neewu sax nit la doon ñaawal waaye boroomam bi ko bind sax la doon ñaawal man loolu laa jàpp te ñaawal googu da ci am ay sponsor ndax lan moo tax mooy mhm. man soo gisee ma ni la lu may wax lu ne day am bopp am geen man gaaw a tontu taxul may tontu gaaw wax taxul ba may wax man dama rus lool rusuma nag ci moom ndax moom wax na wax joo xam ni wax na la mu wax ba pare saagawaan ñépp ndax nee na sénégalais yi neewul am na ñoo xam ni di dafa ni sénégalais yi ndege seen bopp yi moom ndox newu ci loolu rek loolu rek rëy na waaye nag loolu lu mu metti metti da da nga koy nangu ni am na ci sénégalais ñoo xam ni. ndox newul ci seen bopp ndax moom ñépp gëmuñu ko. ndax depuis waaw waaye est-ce xam nga lenn. Mhm. bis bu ko yàlla nattu woon rek mu dem ca géej gee man xam naa ni lu ne mën na ko ca fekk waxuma la sax ay mbiri nit ñi naan dana am ak du am de. Serigne Cheikh. lu war a am kenn du ko jàppal bés naa la ko wax tey. lu war ko jàppal déedéet. loo man dëggit jarul di ko wax defal. Hmm. waaye fourne buy bëgg a fay. nga yaakaar ne fay nga. nga ne xaaral ma teg bés boo xam ni. nit ñëpp daal di waat wëqit naan moom moom de nangam sangam sangam. Hmm. waaye nag booy foo. ak di wut bës bàyyi fi dogalu yàlla loo xam ni boo ko waxee ni koy tegtale ak yonent ak yonent la ko yàlla mayoon nga ni dong koy def man personnellement sama aqullaahi taala billaahi wal kitaabi jéggalu naa loolu ñetti fan bi ma seetaanee émission bi ma mujjee def reeci jéggalu naa ko yàlla ñetti fan ci ay istixfaar ndax xam nga lan moo tax mooy sëñ Cheikh dafa am loo xam ni mhm. li ci gën garaaw mooy xam li nit ki di wax ni lii du dëgg te foo taali internet fekk ko fa di gën a garaaw loolu te wax ji rëy lool nag ndawut de ndax li mu wax xanaa xamoo kunkande bu toogoon naan njiitu réew mi naa dem këram une bii ji sàcc fa ay bagage woolu nan ko bu yàgg waaye li yàlla def géej gi mu ne naa ko xar te Allemagne barka démb bi seen géej gi xare yi gis nga la mu da yàq seenu kër ñépp a toog ni garaawul amul solo wax na dëgg nag li mu wax ci sénégalais yi waaye nag man awma lu ma koy wax man daal xam nga lan laa jàpp dama jàpp ne fintool réew mi nu ne ñi ngi liggéey waaye seet settiwunu seetluwunu defuñu dara lu bon li lanu gën a soxla sax lu baax li rawatina ñi jiite télémédia yi lu bon li lañu gën a bëggal lu baax li ñoom ay dof lañu soxla barke salaatul faatihi loolu nag du ñun ak ñoom askan wi ñoom ak yàlla sunu borom la acca balaa ñu génn foofu sax ndax euh, duma ci tàyyal euh, comme que wax na wax ju rëy wax joo xam ne kenn xamut euh, ni bopp baa genn ba kenn jàppeetu ko dara sax fi mu ne nii ni ma ko mën a waxe ñun hmm. moo ko ci mën a fekk ëllëg avenir am waaw xam ni nit ko dafa toogoon ni ana rabbukum na jàpp ne rek ni moom ci wàllu boppam na jàppale na rek ci àdduna ni moom mi ngi mel ni naan man maay yàlla hmm. man maay yàlla nag lu ne mën na la ci fekk mi ngi mel ni nit ku toog ni li yàlla def mën naa ko dindi lu ne mën na la ci fekk ndax man dama jàpp ni bu doon yoon am na lu mu koy teg teg na ko bu yàgg waaye man xam naa ni hmm. lokk na log na loo xam ni pour mu jàllee ko dana jafe baa bu jàllee du rees te billaahi maa la ko wax fii man wax dëgg yàlla masuma am ak moom benn lii ndax dama koy bàyyi xel bu baax dama koy sax ree waaye nee naa la fii nu toll <laughs> réew mépp ba mu daj kumkaan bi moo la gën a tiit yow kuy tiit ci réew mi nag moo la gën a tiit tiit na ci waxam jooju <laughs> tiit na la ko ca man fekk waaye tiit na lu tax nit mën a toog ci wu fen ay at wala ay weer wala ay fan ku nekk di la woolu nga am fit woo xam ni man damaa tiit. doy na waar jërëjëf euh, Serigne Moustapha Dieye ci ponk boobu nga xam ne ci leen desoon ba léegi di ci yaatal waaye nag euh, kuy xalam di ci jaayu dina am loo xam ne naa ko bërxal indi ko ci biir ndax doon na loo xam ne lu am solo la. Mhm. mu di mbiram sarax. Serigne Cheikh fii nu toll. sarax a gën. loo mën gis ci àdduna fii may toog di wax ak yow ku bëgg sa njaboot mucc saraxeel maa la ko wax fi mu toll laa la ku bëgg mucc ci yii di xew nii saraxeel ku bëgg mucc ci làmminu nit ñi saraxeel fii nu toll laa la wax nii amatul lu nit di def mu man la jik ni nga ko bëggee sarax sëñ Cheikh dana fànq ñun léegi nag defatuñu ko yaakaar na nañu boo coqee oto soo tàkkee war nga yegg Tamba du noonu de yaakaar noonu boo yoree foowu alal rek war nga ubbi magasin fu la neex moo waral gis nga ba tey nit ubbi ni la ni dara doxut yaakaar nga ni tey boo fayalee sa doom mu jàngi ba Canada li mu bëgg dana ko am day jàng ba pare toog fa di fa jooy naan dafa bëgg ñibbisi mm-hmm. pourtant saraxamal nga toog di ko xaar yaakaar nga ni ni fii nu toll nii Serigne Cheikh tëj sa njaboot mooy tax nu am ci jàmm ba nga yaakaar du nu mel na nenn fekkate yooyu ñooy gën a yàqu sax gaañe yàqu ña ca mbedd ma sarax mën na ci saafara yàllaa wax <laughs> wa yutimoon a taxaama ala hubbihi miskinan wa yatiman waasira <laughs> Serigne Cheikh mm. sarax li muy def su ma ko doon wax mën nanu fi yendu baanu fanaan fi billaahi wal kitaab moo tax ma ne la mhm. accident yeeg détail yeeg yu ci ne sarax am na ay bagage yum ci man def yu doy waar sax jërëjëf euh, sëñ Moustapha ci mbirum sarax euh, ngëneel yi nekk ci biir yëpp nga xam ne suñ ci desoon ba ak léegi sax mën nañ ci yaatal di gën a génne loo xam ne ay tawféex na waaye damay ñëw ci xew-xew jamono ba léegi des ci mhm. yaatal mu di euh, lii di film série yi nga xam ne dañ ko gis fan yi di xew ci théâtre yi mhm. mu di mbir mu doy waar lan nga ci mën a wax waa xam nga mbon gu nëbbu woon dem ba mujjee di feeñ xale yi léegi li ma gis ni koy dund nii man dama tiit ci seen ñàkku kers ci seen gaaw a tontu ci jàpp seeni waajur ñooy seen morom sëriñ Cheikh mm. ñay def sëri yooyu bu nu yoroon bàyyi am fulla balaa ngay toog di xalaat sax ni lay teg caméra danga xalaat li ngay def boo ko defee loola ci man fekk waxuma la sax de nit ñi di la ŋàññ waxuma la loolu say kilifa ba pare mm. soo amul kilifa it mm. nga war kilifa bopp. xaalis am na boo xam ni du xaalis. xal la. Serigne Cheikh. am na lu ma gisoon yàggul dara ci soxna su ko tourné woon ni koy wax ku naan leen a géey mhm. ba ba muy dee du ko fàtte te image ba du ma sa dañ mhm. waaye balaa muy xam ni gàcce la mu feebaroon ba sonn ni àlleen ma sama téléphone ma seetaan internet ba mu gisaat boppam bu ko ci dee fekkee nag du moom lay metteeti de dana metti képp kuy mbokkam ci àdduna lu ko jar nga ni bu dee alal la alal ji du muur loolu danaan ko dàng di la yóbbu fone ci àdduna bës nga ciy wut doo ko fekke soriñ Cheikh yar ak tegin ak ormal sa bopp ormal sa borom ormal yàlla nag weesuwut nga xam ni nga xool say maam mhm. xool ngor ci yow xool bopp si yow bu la leneen dara leneen looy liggéey di ca tedd tabaaxul nit a ngi liggéey lu muy tedd tabaax xale yi mhm. moo waral gaaw a déegi nag moo waral yu bare bare ci kanam tuuti boo ñëwee mhm. mariage dootoo ko déggati moom maa la ko wax fii si kanam tuuti boo demee lii ma gis pour muy wéy nii buñ ko ci bàyyee jamonoog ceddo ga demoon dana ñëwaat te ceddo yi sax am na lu mu doon bàyyi xel ndax am na lu mu doon xeex ak lu nu gëm ñun nag fii nu toll danoo gëmul dara bés bu ne ma toog fii ma ni man mësuma gis tubaab buy ñuulal man loolu lu ma yéem la mësuma gis tubaab buy ñuulal <laughs> ndoxum siti ñun ñoo koy jàmbat <laughs> <laughs> ñun ñoo koy jàmbatan ah. <laughs> mësuma gis tubaab buy ñuulal tubaab ba na mu mel bi yaram war rafetee bëgg na bu ñaawee bëgg na bu saltee bëgg na su yeewee bëgg na ñun ñooy mel ni lu kenn xamut ñun ñoo bindoo noo xam ni masoo gis ensemble bu mu mënti doon ci européen mm-hmm. fu ay mu mënoon a toog sol ay sabadoor amut ñun ñu dem fa di xoj sunu bopp ci ay costume ba indi complice googu ci réew mi topp sunu njaboot gi nu yaakaar ni tubaab yi li ñuy def mooy dëgg film yu bon yépp ci waxtu julli yi lañ koy teg xale yi ne xaalis a ko jar billaahi wal kitaab bi ku ko def danga ko réccu te yàlla xam na ni man ku ma gis ci internet bi ngay def loo loo xam ne baaxul ma jàppal la dog barki salaatul faati ba dootoo ko tàll waaw yàlla bëggul loolu mhm. maa la ko wax fi mhm. ku ma gis ngay def lu bon ci internet bi ma ñaanal la yàlla ngay insister di ko def ma jàppal la dog ndax man sëñ Cheikh damay jàppalaate dog mhm. waaw damay jàppalaate dog am na ñoo xam ni bi leen ay xat-xat newee ci ñoom dama leen jàppal dog te yàlla tax imaam Ali Ndaw ñaanal naa ko waxtu wu ne ndax fa mu ne woon du woon palaasam waaye dogalu yàlla yàlla kenn ku ne fa mu la yóbbu xam na la tax ba mu teg la fa. bëri na ci ñoo xam ne suñu jàqee dañuy xalifa Sall mii. Mhm. ñaanal naa ko guddi ñaanal ko bëccëg te xaw ko. imaam Ali Ndaw xaw ko. Ousmane Tounkara bi ci Amérique ñaanal naa ko guddi ñaanal ko ba te xaw ma ko ak ñeneen ak ñeneen ci gàttal dama la bëgg wax ne man ku ne ci lu baax di ci daw lu la ci fekk ma ñaana la ba ci Guy Marius Sagna <laughs> dama ko nawloo dama ko gëm li ma ko gëmee mooy dama koy xool gis ci moom dëgg rek honnêtement te man loolu laay gëmee nit du questionné nag ni damay far fii ak fee ndax man ñooña masuma ci toog ak kenn ndax am na lu ma yàlla suturaale wax naa la ko ba tàyyi parce que may dégg xale yi nanu bàyyi yi nu nekk mu ci am ndam nag musiba rek jërëjëf acca euh, mënuma waxtaan ba pare te dugguma ci lii di kujjee langue politique nga su ma ko waxee naa bëgg ñu dellu siwaat ci gis gi su réew mi waaye jëmale ko ci diggante kii di Ousmane Sonko ak Adji nga xam ne coow li ba léegi euh, fayagut mhm. waaw waa xam nga sëriñ Cheikh dama lay wax ni man de wax dëgg yàlla ndaw sii bi nu ko karee ci yoonu Kawlax gii di ki yoroon saloo ba jël ci moom téléphone am te ni nu yoon am na ci réew mi man de wax dëgg yàlla bu dee bagage yi Sonko fi mu lu ma ci dégg rek <laughs> dama naan jàppal ni loolu mooy lan la ca wax waaye man laa la wax gëw ma ni dana leer ba ba may sàngoo suuf billaahi ko mukk mukk rek xam nga la non du question sax ñeme mhm. ndax ndaw si ki jël téléphone te ay preuve am na ci ka ko def boo xam la tax mu def ko ak ñu ko ko sant mhm. <laughs> xaw dégg nga wax jëm déet mhm. ndax dama jàpp ne bu àtte di am jarul kenn di yàkkamti di dugg ci kër jaamur di fa xeexe mhm. jaru ko ñaareel bi ci tegu problème aji saar du gaaw a jeex ndax ay association ñu ngi ciy am di encaisser alali jaamur mhm. naan dañuy xeexal jigéen ñi te booba seeni ceeb a ngi ciy tooy ndax bu doon loolu la daan ko def avant nu mhm. waxante dëgg te yàlla tax <laughs> <laughs> docteur moom doo bàyyi ba nit ñi dee nga naan damay jàngi docteur déedéet loolu du dëgg <laughs> la ca biir a ngi ci am ñetteel bi ci tegu <laughs> am na ku ñu naan kilifa hmm. na bàyyi xel lu bare gis nga booy xeexal sa réew am na détail yoo xam ni mu la ci dugalee bul ci dugg buñ la ci dugalul bul ci dugg nit sa ngor sa diine sa lépp su ma koy wax nag ñaari mbiraam ndax bu dul dara bis jot na mu am lu mu servir Sénégal man loolu laa koy gëme nit nag ku dul juum amut man mii sax damay juum kon man war naa juum wax ma ko ma juum wax ma li tax nag xëy na yàlla dogal li muy dogal ca kaka siiwaloon xëy na moom kilifa li ne ci xolam bu rafet ak la xew waaye dafa am loo xam ni boo koy xeex waroon na la ci fekk waroon na la ci dégg am taraas sax waroo ci dugg taraas nag première kàddoom man dafa am lu ma gën ci bi coow li amee <laughs> deuxième kàddoom sama aqullahi taala bu doon lu may àtte la d'accorduma ci ak moom gor kàddoom benn lay doon <laughs> waaye daal ci lu may koy dénk te di ko dénk suma bopp <laughs> mooy lenn rek mooy boo doonee koo xam ni da nga jël engagement ñëpp gëm la wóolu la te ba ngay xeex ba léegi yàgg na bu la ay détails yu sew ndax gaa yi seeni kàmb la nu yor réew mi suñ la jàppee jàpp nañ la de waaye suñ la weddee weddi nañ waaw non waa waaw dafa am yoo xam ni dafa am yoo xam ni ndax tey nee naa la noon ku koy wër ci sa biir li la jege ngay njëkk xool moytul moytul rek yàlla nag mooy sàmm nga moytu yooyu moom da ngay moytu ndax Sénégal noonu la bindoo buñ la jàppee jàpp nan la comme liñ la wax buñ la bàyyee bàyyi na la moo tax yàlla na sunu borom dolli sutura foofa sëriñ Cheikh li ma mënul bañ a wax ku nu naan tàggakatu yonent bi mustafaa Mbaye dafa juum ci benn photo bu nu ko envoyé mi ngi sama bopp bi nag depuis boobu man nag njuumte googu mhm. nangu naa ko te bokk ci ñi koy jéggalul yàlla ak yonent yàlla muhammad ndax li mu tagg yonent bi kenn xamul nu mu toll te nit day juum te saay-saay yi ndegam ñoo mën a jël seen temps di bind kaamilu alxuraan te du kaamil sañ nanu fekk ku bëgg yonent bi topp yenent bi gëm yenent bi nu def la loo xam ni dañuy bëgg sax nit ñi bëgg na génnee seen xel ci yonent bi moo tax nit ñi na ni bàyyi xel lu baree bari nit la mu bëgg lan koy naxe mm-hmm, mm-hmm. <laughs> waaw li nga bëgg rek lan lay naxe mm-hmm. nanu ko jéggal rek te yàlla tax Moustapha Mbaye waaw maa ngi soo koy wax ci moom ba may émission ci àdduna ba léegi waaye nag maa ngi bàyyi xel nit ñi lu bare nag waaye lu ma gis dafa am fu may xooli sëñ Cheikh tarkaal jërëjëf kon mën nañ laa bàyyi nga tàggatoo nu bàyyi xel te wuti sarax wut ñaan Serigne Cheikh. Mhm. ñaareel bi ci tegu di sant sama njaboot gi ci àll bi. Mhm. su ma nee kan ca amerig ca armée ba dana xam li may wax. Mhm. su ma waxee it Fodé ca Amérique dana xam li may wax. kan moomu nag di sama lépp lépp Serigne Cheikh. nu dajale alal ju dul jeex ci sama njaboot gii defal ma ko te yàlla tax ci tabaski bi loolu rëy na ci man su ma toogee sax santuma leen ni defuma li ma war a def waaye su ma waxee rek xam nañ li may wax yàlla na leen yàlla dollee sutura bëggunu sax ma koy wax mhm. waaye sama ngoro ma ko ma yut mhm. sëriñ Cheikh di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal wér di leen ñaanal sutura wax jii nu waxi bu amee lu ci ñagas nu baal nu àq mhm. wasalaamu aleykum wa